c'est bon waaw waaw asalaamaaleykum wa wa barakaatu mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fii ci jumaay Touba ci liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moo koy def ci koor gi ci di ko dundal ci wàllu bernde yi ndogu ak ay waxtaan ñu baaxoo nag at mu jot ñu ci ànd ak kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi suñu waxee kilifa yi nekk ci at dëkk bi nag ci wàllu xëy na euh, euh, mbirum àddina mën nañoo wax commune de Touba moo ci jiitu commune de Touba yàgg ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ci yëngu yu baree bari kon dana jaadu bu ñu amee liggéey bu mel nii ci biir koor gi ñu sàkk mu teew fi ngir xool liggéey bi ni mu demee ak it euh, fexe ba kóllëre gi nga xam ne moom la sëq ak daayira bi te de yàgg ko jëflanteek moom muy kóllëre goo xam ne gu rafet la macha allah loolu itam lii doon ci seede kon tey ñu taxaw fi nag ak délégation commune bi muy délégation bu am solo boo xamante ni euh, Serigne Mor Lo mi ngi nii euh, moom itam moo ko jiite ànd ci yegg ak euh, directeur de cabinet Thierno Diakhaté waaye itam adjoint au maire sëñ Alhaji fallu Ndiaye Serigne Alla Niang moom itam mi ngi fi ak Serigne Serigne Moussa Moussa Thioune ñoom ñoom ñëpp muy délégation bu am solo boo xamante ni tey ñoo ñëw ci jumaa ji ngir teewe si li nga xam ne moom la daar Muxaddamatul Xidma di amal ci koor gi kon nag duñ def lu dul jël kàddu gi rek jëbbal leen ko ñu wax yóbbante bi leen maire yóbbante ak nan lañ gisee programme bi nga xamante ni moom la daayira Muxaddamatul Xidma di def. jërëjëf. auzu billaahi min seytaani rajiim bismillaahi rahmaani jërëjëf Sëriñ Tuuba sëriñ taxa suñu sëriñ suñu yaakaar tey ak ëllëg yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér yàgg uh, taxawu liggéey sëriñ Touba bi ni mu koy taxawee ñun ñëpp ñu fekke ni nga ko waxee nag tey ci bërëb bu sell bi di jumaay Touba ci ndog yi nga xam ne moom la fi mu Muxaddamatul Xidma di organiser at bu jot bisu tey bii ci heure bi ñu nekk monsieur le maire Abdou Lahad Ka daf ñu yebal ñu teewal ko moom ci boppam dafa am empêchement de dernière minute waaye moo waroon teew ndax xam na bu baax seen diggante xam na bu baax aussi barab bi liggéey bu am solo bi ngeen fiy def muy Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne lim jàpp mooy moom li mu waroon a taxawee muy commune bi moom ngeen koy taxawal kon sëñ Sidi Ahmed Mbacké mi premier adjoint au maire xam ne euh, lii biñ ko jàppee invitation bi moom moo ko doon coordonné moom itam dafa am ngant nekk ndakaaru waaye mun nañu sàkk leen ab délégation boo xam ne su ngeen demee da ngeen fay fekk monsieur le maire mi nga xam ne ci yéen la bokk muy El Hadj Falilou kon délégation bi El Hadj Falilou Ndiaye euh, bu jàllee taxawaay bi mu am ci Xetma moom moo ko jiite directeur u maire bi muy Thierno Diakhaté moom itam mu ngi ci biir délégation bi sëñ Badara Niang moom mi ñëpp xam ko moom itam mu ngi ci biir délégation bi sëñ Moussa Thioune mi nga xam ne dafa nekk ci cabinet maire bi aussi di ko jàppale kenn ku ne xam ko ci dëkk bi moom itam ñoo àndandoo ak meneen mbooloo mi nga xam ne jërul ma leen di tudd waaye maire nañu suñu ñëwee nañ ko nuyul bu baax sëñ Afe sëñ Afe Bousso mi nga xam ne moo jiitee daayira bii di mu Muxaddamatul Xidma ak membre Muxaddamatul Xidma yëpp jottalil ko ay cantam ak ay ngërëmam ci lu jiitu lépp lépp rafet taxawaay bi rafet jumaa ji nga xam ne symbole la ci yoonu sëñ Touba bi ñëpp am nañ mbégte ji ni ngeen ko taxawoo muy daayira bi donc loolu aussi moom mu xam ko bu baax a baax a baax yàgg ak yéen bu baax a baax tàmbalee ci sëñ Afe mi nga xam ne moo ko jiite ba ci daayira bi yëpp membre yëpp rawatina yéen ñi taxaw tey ji wax dëgg yàlla euh, euh, xam na bu baax seen diggante ñun ñi ànd ak moom liggéey bi aussi sëñ bi boolee ñu ñuy saytu mbiru dëkk bi ci commune bi ñun ñëpp xam nañ taxawaayu daayira bi looloo tax sawar nañ trop tey pour ñëw fekk si liggéey bu am solo bii ngeen di def vraiment ay junni junni doomu aadama ngeen leen di jox ay ndogu loolu lu am solo la ca bi ñu ñëwee ànd nañoo ñoom yéen wër ni ngeen koy defee wax dëgg yàlla muy defin wu mucc ayib sëñ bi bëgg ñëpp bëgg taalu bi yëpp bëgg ñun nag tey lañ fi soog a ñëw ba mu tàmbalee ba léegi ci at bi mais at bu mas a ñëw aussi day euh, maire day ñëw ànd koog yéen lim ñu wax mooy liggéey bi ngeen liggéey moom fas yéene wut kenn mën ko ci looloo tax loolu moom na ci seen xel daal nee ngeen jottali sañ bi ginnaaw bu mu ko jottalee sant yi ngeen jottalil ko engagement yi mu jël fas yéene ànd ak yéen ci ndogu yi at bu jot ñuy ñaan rek yàgg ko fekke yàggal liggéeyal sëñ Touba liggéey bi nga xam ne aussi muxadimatul xidma da koy liggéey ci dëkk bi ak jumaa ji ak euh, li wër jumaa ji ak euh, béréb yi nga xam ne yëpp mooy mooy béréb yu am solo bàq yaag Euh, ak euh, lépp daal liggéey bi nga xam ne sëñ bi moom la leen bëri bu sa siyaarukaay ci dëkk bi sëñ bi dénk leen ko loolu fas yéene na ko fas yéene na cee ànd ak yéen te loolu yéen xam ngeen xam ngeen ci taxawaayam moom itam xam na ñun ñii di ànd ak moom El Hadj ngi ni adjoint au maire la kon loolu daal liggéey boobu lañ fas yéene liggéey ndax dëkk bi kat moom lim jàpp mooy li ko sëriñ bi dénk moom ak ñim àndal muy maire bi ñoo war a taxaw lépp luy dëkk bi développement dëkk bi te jumaa ji bu ñuy lim li ñu war a taxaw ci dëkk bi jumaa ji moo ci njëkk bërëb yi ngeen yor moo ci njëkk kon loolu du ci lisine ci moyen lépp loo xam ne euh, yéen andi ngeen ko waxt euh, fas yéene ko doxal ko ci fii suñ ko waxtaanee rek loolee dana ko daal di dogal te ñun ñii ànd ak ñun itam pas-pas boobu lañ ci am ndax ay taalibe sëñ Tuubaa lañ rek yuy yuy sañ ci dëkk bi lii daal la ne ma woon naa naa leen ko wax vraiment gën leen a encouragé waat surtout yéen ñi ànd ak sëñ mus euh, sëñ Afe Bousso waaw ndax ay ay tànneef ngeen ci dëkk bi waaw ci côté yëpp nag te loolu xam nañ ko màggal gi aussi noonu ngeen ci taxawee te ñoo koy ànd waaw kon nag euh, ngeen wax sëñ bi aussi mu ñaanal ñu ñaanal maire bi ak ñi mu àndal ñëpp sëñ Sidé ak ñi àndal ñëpp daal waaw administration ba fa nekk conseiller vraiment Euh, ba li nga xam ne sëriñ bi dénk na ko muy administration dëkk bi euh, ñu def ko ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi bëggee ndax fii moom sëñ Touba rek moo fi nekk sëñ bi rek a fi nekk sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu ci ànd ak weer yàgg fi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ok jërëjëf sëñ Mor ci kàddu yu rafet yi nga xam ne yaa ngi koy yëkkati ci turu maire ak turu commune Touba bi yëpp di ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant yow ak délégation bi nga àndal ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi ci turu Serigne Afia mi nga xam ne moo jiite daayir Muxaddamatul Xidma di fedd li suñu kóllëre ak suñu euh, jëflante ak commune bu Touba rawatina bi fi maire bi nekkee ba léegi muy Abdoul Ahad moom gëm na ne sëriñ bi moo ko dénk yëf yi waaye avant tout ab taalibe la boo xam ne ñoo bokkoon waar yi di ci nekk loolu bi mu ñëwee ci bopp commune bi wane na ko wane na taxawaay bu am solo boo xam ne def na ko ci digganteem ak daayira muxaddamatul xidma te lépp def gim def jumaa ji muy priorité moo ko waral bépp bépp mesure bu ñu mës sa jël fii boo xam ne commune am na ci lu mu war a def rek loola buñ ko ko waxee ca saas la cee daal di taxaw taxawin wu rafet du ma fi nekk di ko lim ñu yéen xam ngeen ko ñun xam nañ ko la ca jumaa jeeg la ca bàq yaag yooyu yëpp xam nañ ko am na ci yoo xam ne du xaar sax ñun ñu ñëw wax ko ko waaye moom moo ñu ci soññ jàpp ne loolu lu war a am la kon loola ñoom ñi ko ciy sant bu baax a baax te xam nañ ne sëñ Touba rek a tax mu di ko def kon sëñ Touba mi tax mu di ko def yàlla na ko sëñ Touba fayal boppam taxawu ko taxaw yéen itam yéen ñi koy jàppale ci adjoint au maire li ko dalee ca euh, premier adjoint bi ba Serigne Sidi ba ci yéen ñi ñëpp di ko jàppale ci jàppale wu rafet xam nañ ne dëkk bi rëy na dëkk bi dëkk bu naqaree yor la waaye ñëpp constaté nañ ne mi ngi ciy góorgóorlu comme kem kattanam fu ne lu mu fa war a def bu ca mënut lépp it ma ngi cay feeñal yéeneem loola nag ak njàmbaar la ak ak ak ak ak euh, pastéef la loolu nag pastéef boobu nag sëñ Touba rek moo tax mu di ko def kon yàlla na leen sëriñ Touba taxaw yàlla leen yàlla fay gis nañ taxawaay bi rafet na lool kon ci turu Serigne Afia mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak mbooleem membre yi ñu ngi leen di yëkkati kàddu cant di ko teg ci seen loxo lii rek lañ ci bëggoon bëggoon jëf ju mel ni ngeen ñëw fi seede ko teg ci seen bët ndax nag lu lu dañuy wax ne euh, golob nangam euh, geenu nangam gàtt na waaye loo la ca dal borom yëg ko waaye fii dëkk bi lu ñu fiy def rek ci seen loxo la tege ndax kilifteefu àddina gi suñu borom ci seen loxo la ko teg kon nag loolu ñun xeebuñ ci dara kiiyuñ ci dara xebatuñ ci dara lépp gis nañ ko te incha allah fas yéene nañ coloré googu ñu sàmm koog yéen ba dem ci kanamu sëriñ bi ndax loolu rek mooy mooy mooy suñu ndam ñun ñëpp kon ñi ngi leen di sant di sant alaaji Fallou Ndiaye mi nga xamante ni ni nga ko waxee moom itam membre fondateur daari Moukhaddamatoul Khidma la yàlla def tey muy adjoint au maire ci commune bi loolu itam kon taxawaay bu rafet la tawfeex la ci ne rek kon maire bi sax xëy na dañuy wax jumaa ji sax am na représentant ci maire bi loolu mën nañ mën nañ mën nañ ko tudde noonu sëñ Ilimane Gueye kazalika moom itam ñëwoon na léegi moom itam sëñ Abdoulaye Bousso Mokhtar kon loolu mooy moo ne ne rek jumaa ji moom mi ngi ci biir commune bi benn lañ kon yal na yàlla def jàmm te taxawuñu ba ku ci nekk li nga yéene ci sa morom suñu borom mottali ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.